الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق الأرض وشقر لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal salaamaaleykum frère bu ñuy xutba dañuy arrêté lépp lu ñuy def ñu déglu xutba bi loolu mooy mooy ajjuma incha allah yàlla nañu yàlla taxaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam sunnaam bés pénc yàlla nañu yàlla sàmm sàmm su njaboot doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi dem ci événement boo xamante ne événement bu doy waar la waaye événement bu màgg ñu dugg ci at bu bees nekk ci weer boo xamante ne comme ni ñu ko yàgg a waxee weer bu yàlla warmal la mooy nit ki war na ci def kéemtalaay kàttanam ci moytu lépp loo xam ne yàlla tere na ko waaye mu góorgóorlu tam ci li ko yàlla sant weer la boo xam ne war na ci éviter tam di tooñ li nga xam ne mooy moroomam war na ci éviter di tooñ li nga xam ne mooy moroomam weer la boo xam ne tam tam war nañ ci éviter di xeex di tuurante deret loolu warul ci li nga xamante ne moom mooy weer bi tudd muharram nekk weer bu ñëkk ci atu jullit ñi jeexal nañu atu 1444 tey dugg nañu ci li nga xamante ne mooy 1445 ñu xam ne li ñuy gën a dem ñu ngi gën a jege li nga xam ne mooy yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne bu fi jógee àdduna du fi des lu néew deux cent deux mille ans te ñun suñu at bi ñu ngi ko samp jamono bi nga xamante ne ñoom ci la ñu gàddaay yonente bi mu jógee màkk gàddaay ñoom Médine ci la ñu samp li nga xam ne mooy atu li nga xam ne mooy atu jullit ñi mu tàmbali woon ci la un ba tey ñu yegg ci mille quatre cent quarante cinq kon mun nañ ne xaaju 2000 ans yooyu yonent bi waxoon romb nañ ko ba teg sax li nga xamante ne mooy 445 te yonent saa salaam du waxantu te lu mu wax yàlla moom moo ko wax loo waxoon na bu fi jógee àdduna du fi des lu toll ni 2000 ans yàlla nañu yàlla gën a dëgëral waaye may ñu mujj bu rafet doomu ndeyu mbokk jullit ñi at bii de war nañ ci am jàngat bu bari ndax li xew ci at bi passé bëri na ci loo xamante ne nii buñ ko jàngee dinañ am nekkin boo xam ne ci at bi ñuy dugg xëy na ci li nga xamante ne mooy naataange waaye tamit ak li nga xam ne moom mooy dal ak sécurité ndax li xew ci Sénégal ci at bi ñu génn buñ ko xoolee ci période bi ñu nekk rek muy nawet heure bii daaw sonnoon nañ lool ci nawet bi waaye war na jur ay jàngat bu ñu xoolee li fi xew ci ay manifestation li fi xew ci li fi xew li fi xew ci ay bakkan yu rot moo xam ci wàllu manifestation yi wala xale yi nga xam ne dañuy jël gaal bi di génn bëri waan na mbir yu bëri yoo xam ne xew na fi ci at bi ñu génn waaye war nañ ci jàng ay jàngat yoo xam ne bu ñu duggee ci at bi dafay nekk jàngat yoo xam ne dañ ciy dugg ci anam boo xam ne anam bu mucc ayib la waaye mu wute ak li nga xam ne mooy anam bi passé lu jëm ci wàllu nawet ñun ñëpp xam nañu yàlla moom moom mooy wàccee taw imma day barke wala mu ñëw du barke loolu nag dafay dépendre ci doomu aadama bi fan la toll ci digganteem ak boroomam ndax mu ngi koy wéetal bañ ko bokkaar ak dara ndax yenn bakkaar yu mag yi mu ngi koy moytundu ko lu mel ni njaaloo yooyu dafa nekk ay bakkaar yoo xam ne dafay téye li nga xam ne moom mooy taw wala su waree su taw bi naree wàcc tamit bu ñëwee du def jàmm ñaar yooyu lay def imma taw bi bañ a wàcc wala bu wàccee du def jàmm ñun ñëpp daaw lu ñu dund xam nañ ko mu nekk loo xamante ne waxuma la Sénégal sax waaye dafa maas àdduna bi yëpp asamaan si di wàccee ndox waaye napp bi si suuf ndox bi gé yéeg loolu am na histoire ba muy fàttali mooy histoire yonti yàlla nu yonti yàlla nuux yàlla bi mu demee ba bëgg ala xeetam moom mu woote si 950 ans kenn topp ñi ko topp mbooloo bii nekk si jàkka ji ñoo ko ëpp si koo xam ne woote ne 950 ans yàlla bi mu nammee alag leen dafa ne asamaan si wàcceel ndox suuf si génneel li nga dencoon mu dem ba ñaari ndox yi dañoo war a daje képp koo xam ne dugul woon ci gaalu nux boobu da ngay bokk ci ñi nga xamante ne ci ñuy lab ngay bokk ba ci doomam sax bokkoon na ci ñuy lab kon yenn signes yooyu bu ñu koy yàlla di wan ñun dañoo war a tiit suñu xel dem ci histoire yi passé parce que alquran yàlla wàcceewu ko rek pour nañ koy barkeloo déedéet waaye dañ koy jàng di ko settantal moo tax yàlla ne afalaa yatadabbaruuna alquran aw ala qulubihim aqfaaluha xanaa du ngeen settantal sama alquran bi wala seen xol yi dañ koo kànnaar kon nañuy setantal alquran histoire yi ñuy yàlla di nettali ñu ciy jàng ba bañ a jaar ci li nga xamante ne moom mooy ñu fi jiitu li ñu jaaroon su ko defee buñ ko moytandikoo rek yàlla dina wàccee li nga xam ne mooy taw bu naataange ak taw bu barke yàlla ñu yàlla may nawet bu mel noonu nga xam ne taw bi dafay wàcc jàmm waaye suuf si tamit au lieu mu génnee ndox waaye mu génnee ay gàncax yoo xamante ne xeet bi yëpp dinañ ci mën a jëriñoo àdduna bi yëpp dinañ ci mën a jëriñoo loolu yomb na yàlla yàlla ñu ko yàlla defaral doomu ndey mbokk jullit ñi ci weer bi ñu dugg am na benn fan boo xam ne fan bu màgg la muy fan bi nga xamante ne mooy fukkeelu fan ci weer bi yonent bi saa salaam dafa gàddaay jóge meen jóge Màkka ñëw Médine bi mu ñëwee dëkkandoo mi nga xamante ne ñooy yahuud yi mu fekk leen ñuy woor bés bii ñu jëm tey la ñetteeli fan bu ñu ñëwee ci fukkeelu fan bi mu gis leen ñu koy woor te ñoom ay yahuud lañu mu laaj leen lu tax ngeen di woor ñu ne ko parce que bés ni tey jii la Firawna Musaa gañe woon ko mooy bés ni tey jii la Firawna laboon ci li nga xam ne mooy géej bi moo tax bés bi saa bu dellu see rek ñun dañ koy woor di ko sante yàlla kon gis ngeen doole koor ndekete koor du ñun ñoo ko jiitu ndax yàlla waxoon nañ ko sax sax si alxuraan weeru koor kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala lazina min qablikum kon ñi ñu jiitu doon nañu woor mais xooloo ñoom nu ñuy sante yàlla ci koor la ñuy sante yàlla ngir victoire bu Moussa amoon ci Firawna yonent bi ne gënu leen ma ci yey ndax Moussa man la gën a nekk sama naataangoo kon bés ni tey dinaa woor li nga xam ne moom mooy fukkeelu fan bi waaye foofu dañ ciy jàng li nga xam ne mooy lu am solo yonent bi musta bëgg ñu am lu ñuy nuru nuru yahuud wala di ko nuru nuru nasaara yonent bi musul bëgg ñun jullit ñi ñu leen di nuru nuru lu ci dara moo tax bi mu waxee loolu saxaaba yi ñoo ko interpellé ne ko yonent bi de bu ñu wooree ndoowee ak ñoom fukkeelu fan bi kon ñu ngi nuroog ñoom ci xeetu jaamu yàlla te yow yaa waxoon bu ñu nuroog ñoom ci dara yonent bi ne leen de kon de at bii di ñëw dinaa woor neuvième bi ak dixième bi ngir wuute ak ñoom par yàlla def mu génn àdduna avant at boobu noonu di jeex yal nañu ko yàlla fayal doomu ndey mbokk junni kon loolu sunna la ñun ñoo koy dekkal ndax sunna dafay nekk ci ñetti anam immaa nga gis yonent bi def ko nga def ko ànd ak moom wala mu gis ku ko def te terewu ko ko wala mu ne dinaa ko def yàlla may ko mu def ko ñetti yëpp sunna la maanaam moom moo ko def nga gis ko wala mu digle ko ne defal donte moom defu ko mu ne def leen dañ koy def lu mel ni ci wàllu aj am na aj boo xam ne dafa ànd ak saxaaba yi aj aju xiiraan ne saxaaba yi aj leen tamattu saxaaba yi sax laaj ko ne ko lu tax nga def xiiraan te ñun nga digal ñu tamattu waaye kon ndekete yonent bi mën na def dara digal ñeneen def leen nangam te fekk defu ko waaye en tant que moo ko digle rek sunna la da nga ko war a def wala mu gis ku ko def te terewu ko ko maanaam mu gis la yaa ngi def benn xeetu jaamu yàlla terewu la ko kon loolu tam sunna la kon nii la ñuy nattee sunna yéen saa salaam yàlla nañu ko yàlla fayal daanaka dafa matale li nga xam ne mooy diineem yépp saxaaba itam nekkoon ñoo xam ne te loolu mooy nekk sax suñu waxtaan deuxième partie ñu nekkoon ñoo xamante ne dañu mënoon laaj ndax yàlla moo santaane ci alquran fasalu ahla zikr in kuntum laa taalamun laaj leen su fekkente ne xamu leen ñoom nag bëriwaan na question yoo xam ne laaj nañ ko waaye ñun ñii absent lañ ko doon laajal kon buñ ci tegloo dañoo war a def li nga xam ne mooy réponse yooyu yoon tib daan leen tontu. bu ñu tolloo ci neuvième jour incha allah nañ ko woor mooy temps Ashura Ashura moom mooy fukkeelu fan bi nañ ko woor yonent saa salaam digg na képp koo xam ne woor na fukki fan ci muxar fukkeelu fan ci muxarram yàlla daf koy jéggal bàkkaaru at pourtant jóge woon nañu léegi ci arafat nga woor ko ñu jéggal la bàkkaaru ñaari at tey nga war a wooraat fukki fan ñu jéggal la bàkkaaru at ak suñuy bàkkaar yu bari man nee naa nit ki lu muy def ci bàkkaar ci bés bi rek buñ ko ko tegaloon bu amee occasion yi buñ ko ko joxee war dafa ci war a profité ndax dañoo bëri bàkkaar kon ñu ngi koy dénk suñu bopp di leen ko dénk yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla xiir ci boppam aquli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim astaghfirullah astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi julliti ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weer bi nag duñ ci ñëw mukk doomu ndey yi lu dul ne dinañ taxaw ci benn point mooy ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali muhammadu rasulullah yàlla moo ko waxal ci boppam ci alquran aaya baa ngi nii ma tiim ko yàlla ne muhammadu rasulullah wallazina maahu ashiddaau alal kuffaaru ruhamaahu baynahum yàlla moo seede ne yonent yàlla muhammad moom yàlla moo ko yónni yàlla du juum de ñun nit ñun ñooy juum ñoom malaaka itam yàlla moo ñaaleel na leen du ñu def erreur ndax ñoom laa yaxsuna allaha ma amarahu wa yafaluuna ma yumarun ñoom malaaka yi dañuy xaar yàlla ne leen def leen rek ñu def te sangu malaaka yi mooy jibril alayhi salaam sangu nit ñi mooy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bi muy tànn yont yàlla muhammad jibril la yónni mu fekk ko ci xaaru Hira mi benn xunt boo xam ne fa la daan dem di wéetal boroomam ndax tolloon na jamono màkk bokkaale gi dafa bëri woon lool ku ñëw di indi yàllaam ñuy concurrence ci seen yàlla yi ba seen pèlerinage yi sax ci yàlla yi lañ ko doon favoriser waaye moom loolu diisoon na ci moom lool ba mu xatoon biir màkk di génn dem di làqatu ci ba Jibril foofu la ko fekk indi ko li nga xam ne mooy révélation bi juumul moom Jibril jaawalewul su ma waxee xëy na am na ñoo xam ne xam nañ li ma bëgg wax xam nañu sama wax fan la bëgg jëm yonent yàlla muhammad moom la yàlla yónni te mooy yonent bu mujj ginnaaw moom kenn du nekk yonent képp ku ñëw ginnaaw yonent yàlla muhammad mu woote ne yonent la dajjal la waaye du yonent yàlla moo tëj buntu yonent yonent yàlla muhammad mooy xaataman nabi ginnaawam yonent du ñëw waaye dem na ba am commune communauté boo xam ne ci seen i jëf ak seen i ñawteef yegg nañu ci ne yonent yàlla muhammad du moom la mission bi waroon wàcc ci moom waaye mission bi mu ngi waroon wàcc ci ki nga xam ne mooy alin kan mooy alin ibn abi taalib ku baax la saxaaba la àndandoo yonent bi salaahu salaam mooy firi saxaaba dafa ànd ak moom ñu ànd ci bokk pas-pas waaye dafa ànd ak moom ñu ànd ci bokk deret waaye ak loolu yëpp sax taxul ne àllin moom moo gën ci xeet bi ginnaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na bu ñu tegee abu bakar ngëmam ci balance te xeet bi yëpp te yonent bu ne xeet bi yëpp mooy ñoom àllin ñoom umar ñoom usmaan ñëpp ba ci man ñun ñi fi toog ñun ñëpp mu ne ñu jël suñu ngëm ba ilaa yow mi diin xeet bi yëpp ñu jël seen ngëm teg ko ci balance jël ngëmu abu bakar teg ko ngëmu abu bakar mooy féete mooy féete suuf mooy doole moo gën ci xeet bi moom la yàlla ci alquran woowee ñaareelu ñaareel yi lan moo tax ñaareelu ñaareel yi mooy que ne dafa ñëw ànd ak yonent bi joxe boppam joxe lépp ñuy topp yonent bi war koo war koo rey ci gàddaay gi mu def boobu ñoom ñaar kese ñoo ànd ba làqatu ci montagne bi yonent bi dem bay nelaw ci pooju pooju Abu Bakar te montagne bi ñu dugg ay jiit ñu ngi fa ak seeni pax Abu Bakar di dagg ci yéreem di fatt pax yi di fatt pax yi ba mu des benn boo xam ne tànkam la ko fàttee jiit bi fett ko ba ñaqam mooy toq ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu doog a xam ne kii am na lu ko dal ci àndandoo bu sincère boobu yàlla tuddee ko ci alxuraan ñaareelu ñaareel yi Abu Bakar bi yoon saa salaam génne àdduna ñëpp jaaxle moom moo ñëw delloowaat leen kon kii amul moroom ci xeet bi moo tax bi mu wuutoo yonent bi amul werante ne moom moo ko war a wuut waaye tout le temps seytaane dafay bëgg yàq tout le temps seytaane dafay bëgg diviser amul benn yonent bu fi ñëw loolu ne mission am jeex na ñu bàyyi ginnaaw am ñoo xam ne dañuy weddi jéem a jaxase bu neexoon yàlla nag ñëppay topp yonent yàlla Muhammad waaye yàlla moom la neex muy bàyyi àdduna doxee nii am ñuy pour am ñuy contre bii laa yow mi din lii mooy am waaye nag daf ciy baax am ñoo xam ne dañuy taxaw di yeete di teg teg ñi ci yoon ñu yàlla namm ñu tegu ci yoon te ñu may leen xel bu ñu déggee dinañu xam ne lii mooy dëgg ñu topp kon bu demee ba am communauté boo xam ne dañuy taxaw te am doole lool nag ndax yàlla moom moo leen bàyyi ak seytaane dooleel leen tey lu ëpp ci àdduna bi booy xool ci alal dañ ko am di woote di jëme ci ñoom ñenn ñi seen bon yegg ci ba bu ñuy nodd sax duñu tudd yoon bi saa salaam waaye alin la ñuy tudd dafa indi divergence alin ci jamonoom rek daf leen doon rey ci jamonoom moom daf leen doon rey yamu ci di leen lakk ñu naan ko dem dem ba naan ko alin yow yàlla nga gis nga yaa ngi rey sax yaa ngi lakke dem na ba ñu yegg ci bon saxaaba yi nga xam ne yàlla dafa def ne kontaan naa ci ñoom ci seen dund yàlla ne ñii dem nañu àjjana yonte bi si si si dundam toog nag saxaaba yi lim fukki nit ne ñoom nañu àjjana fukki nit ñooy ñent ñi ci lañ bokk mooy xulafaawu raashidun Abu Bakar ci la bokk Umar ci la bokk Usmaan ci la bokk mais ñoom dañ leen bonal dañ leen di sax rëbb ñun xunut bi ñuy def fajar nga xam ne boo jullee fajar ñaareelu làkk bi xunut boobu ngay def noonu ñoom buñ ci yeggee bu ñuy xunut dañuy saaga saaga saxaaba yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te ñu ngi fi ñu ngi sax fii Sénégal seen communauté dem na ba léegi ñu ngi fii Sénégal di campagne di tabax ay jàkka yoo xam ne dañ koy tabax xool ñi nga xamante ne seen xam-xam demu demu si ñu corrompre leen jàngal leen seen idéologie yooyu di leen financer teg ci ñu ngi fii Sénégal di woote bu ñu jàppoo boo leen xoolee xàmmee leen seen façon jàpp bokkul ak ni yonent bi jàngale ñoom fukki fan yi bu yegsee da ngay gis dañuy dagg seen yaram yi di xotti seen yaram yi di naqarlu mais benn communauté moo koy def si ñoom parce que seen seen kuréel boobu dañoo diviser wu sax nekk ay pàcc waaye benn ci kuréel bi moom mooy dagg ay yaramam di xotteeku di toroxlu ndax lan mooy jour boobu la ñu rayoon ki nga xam ne moom mooy mooy Assane xaw ma Usayd ñuy naqarlu loolu waaye am na ci beneen kuréel boo xam ne ñoom jour boobu la ñuy bànneexu di kontaan ndax jour boobu la ñu rey ki nga xamante ne moom mooy Umar bun Xattaab dañ ciy bànneexu te tey assassinat yooyu yëpp doon am muy ci Umar muy ci Ousmane muy ci Ali ñoom ñoo ko doon def ngir lan samp seen communauté te ba léegi tey loolu la ñuy doxee am nañu pas-pas boo xam ne dañuy làqatu di nëbb seen pas-pas waaye bu ñu amee doole dañuy fës wane seen bopp tey bu ñu ñëwoon fii dangay gis bu ñu xo- mbooloo bi la ñuy xool bu dee mbooloo bi yëpp ay wat bàyyi katu sikkim lañu dañuy dañuy bàyyi seen sikkim ànd ak mbooloo bi xool mbooloo bi lépp lu ñuy def dañuy ànd ak moom mais di installé wu nag bu ñu demee ba am doole taxaw imposer seen bopp ñoom noonu la ñuy doxalee seen pas-pas tey law nañ ci àdduna bi yëpp ba ci yaman dañ fa nekk te am doole ñoom dem nañu ba gis ne dañu war a déqi sax yonent bi saa sallam fi ñu ko denc fi nga xam ne mooy Médine tey pas-pas yooyu ay pas-pas yu bon la ci koo xam ne xam na diine bon gënul weesu yàlla yónni yonent bi yàlla Muhammad nga ne déedéet Jibril dafa trahir mission bi war ko woon jox mu yonent yàlla Muhammad diw la ko waroon jox loolu bon weesuwu kon yàlla ñu yàlla musal ci loolu yàlla ñu yàlla sàmm ñu xam ne daal fukki fan yi lii lañ ci am moom mooy woor su ñuy jeexalee suñu xutba nag boobu yéen ndaw ñi yéen a ko moom te yooyu itam bokk na ci liy yàq pas-pas mooy gis nañu guddi fukkeel bu ñëwee góor ñi di sol yëre jigéen jigéen ñi sol yëre góor këraw kër nga dugg fa di fëgg yor sa tama di dëkk bu njëkk yoon saa salaam nee na yàlla rëbb na góor buy nuru nuru lu góor jigéen jigéen buy nuru nuru lu góor te bi muy wax nuru nuru bi waxu ko ci ay sax manière mais ci colin la yoon bi saa sam doon wax tey seytaane foofu la ñu xiirtal te ñu ngi koy def loolu suñu doom doom bi nga xam ne mooy élément bi ñu war a préparer mu war a dëgër moo tax bu ñu gisee ku mel ni imam Mouhamed Diop ci wax dañ koy ñaanal yàlla dëgëral ko xam ne yàlla da koy xiirtal ci ndaw ñi rek parce que foofu mooy base bi tey ñu samp diina ñëpp nañu xool sëñ Tuubaa Alaaji Maalik seen base yëpp bu ñu ñëwee ci gox ndaw ñi lay doon léegi suñu ndaw ñooñu tey moom ñoom la ñu seetaan tey di leen bàyyi bu tam xarit jotee ñu leen di jàngal lu ñu tuddee taajaboon te cosaan bi nekkul woon leen ay taalibe ñoo ko doon def guddi fukki fan bu joraan bu ñu doon tari ba yegg si afa afa bi haadal xadiis yi taxjabuun ñu jël moo boobu noonu di ko wax di dugg ci biir kër yi tey seytaane dem soppi loolu ba góor ñi di sol yëre jigéen ñu plateau yi nag xool bàyyi leen xel plateau plateau yu baax plateau yi si boppam di taajaboon jël affaire bi médiatiser ko mu taf ci àdduna te islam bëggul loolu muy benn ñaareel bi aussi heure bi ñu koy def heure de crime la ay ay caaxaan kese ay caaxaan kese heure de crime xale bu ndaw nga bàyyi ko mu soppeeku melokaanam yor tamaam dëkk tam di kër kër jàmbur di déranger loolu du diine te ñu ngi koy def bokk na ci tamit li ñu gën a seetlu ci li nga xam ne mooy fukki fan yi mooy nit ñi dañ soppi seen togg ñuy togg ay cere ni su feet la du feet islaam ñaari feet la am bu amee ñetteel ajjuma bii ñu nekk la feet bi ñu xam mooy korité ak tabaski ak bésu ajjuma bi jour tam xarit du feet cere ñu ciy togg nag day nekk rek tolérance xëy na aada la yoon saa sal bi mu ñëwee màkk ñëw Médine fekk na gaa yi am ay aada mu xool li ci indi bokkaale borom subhanahu wa taala li yàq pas-pas mu tere leen ko li nga xam ne nag yàqul dara mu bàyyee leen ko yi ñu fit lim nii xale yi di soppeeku seen cori day yàq pas-pas dafay yàq jikko xale bi ak léegi nga xam ne ni góor jigéen buggee tasaaroo yii dañ ko war a xeex war ko bañ kon yii dañ day day bokk ci yu ñuy tere ci fukki fan yi waaye kantaa togg cere sama mbokk njaayee ni xëy na mer njaay bu may dégg ñooñu muñ leen leen bàyyi ñu togg seeni cere amul benn problème bu ci nekk aada la boo xam ne yàqul dara keneen ki nga xam ne toggul cere nag mu togg leneen tamit amul benn daan du force nit ki dafa war a togg cere bokkul sax ci li nga xam ne mooy programme bi kon li ñu xam te di ko xaar ci fukkeelu fan bi ak neuvième jour neuvième jour bi mooy woor te ci commencement xutba bi leeral nañu lan moo waral ñuy woor yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana